Maguette euh, Birame Diop euh, ñu ngi lay nuyu. maa nga bokk ci syndicat national agent euh, de la pêche bo nekk tamit coordonnateur cellule de com intersyndicat liggéeykatu pêche ak aquaculture fii ci Sénégal tey ñu doon xamle ni ci weeru mai gi dinañu amal conseil présidentiel donc te weeru mai mën nañoo wax ne jeex na ndax mën nañoo xaar ñu amal ko ci weer wi. ñu defal tey pour ñu a waxtaan si wàllu napp bi. Euh, dëgg la conseil présidentiel bi nga xam ne ñu ngi sant président de la république si euh, annonce bi mu defoon le trente xaw ma le trente un mars. Mm-hmm. pour euh, ne day convoqué secteur de la pêche pour que ñu ñëw si moom ñu a càmbar maanaam. problème yi nga xam ne moom la secteur de la pêche am loolu ñu ngi koy rafetlu di ci félicité mais de jàkkaar na ak fi mu nekk nii fi mu nii ak diggante euh, bi nga xam ne président annoncé na ko muy cinq mai date boobu ñu jàpp daal peut-être juin wala jëm juillet daal lañ ko war a mën a ba ñu defee annonce bi ba tey euh, kenn waxtaanul ak yéen ndax acté nañ ko wala dañ koy dàq. non non non kenn kenn loolu ba léegi amuñu si ba bërki dem mardi amuñu si woon euh, dara dara dara dara lu leer Mhm. mais jàpp nan liggéey bi nga xam ne war nañ koo def saytu ko ci napp gi pour jéem a seet ne problème yi am si napp gi yëpp liggéey boobu bu buñ ko tàmbalee mën na jël weer donc jàpp nan ne euh, euh, euh, duñ ko mën a tenir boo moytul si mois de fin juin bi wala jëm juillet bi rek lañ koy mën a tenir bu fekkee bu mucc ayib lañ bëgg a def ñoo ngi ci taxawalu lii di comité pilotage ngir nag ñu daal di waxtaan wala sax ngir ñu waajal yooyu les conseil présidentiel ndax yéen ñi syndicat bi euh, boole nañ leen ci concertation yi nga xam ne ministre bi door na ko. waaw ministre bi boole nañ ñu si d'ailleurs ñu ngi ko si sant di ko ci gërëm parce que convoqué nañu su journée d'information et de lancement bi euh, donc euh, xam bu ñu jógee li mu waroon bëggoon a def mooy mettre en place mooy comité de pilotage bi. Hmm. comité de pilotage moom ni mu koy tënkee nee na dafa am ay pàcc ay pàcc ak i pàcc yuñ ci yuñ ci yuñ koy yuñ koy def donc pàcc bu nekk dina am ñu fa nekk ay nit fa nekk saytu. Oh. xool problème yi nga xam ne ñoom ñoo am si pàcc bu nga pàcc bu nekk du di koy teg si table di waxtaane ko trouver say solution ci soy saytu googu ngeen di syndicat du ñàkk bu ngeen di dem ci conseil présidentiel boobu di ngeen yóbbu euh, li nga xam ne mooy ay recommandation ñu bëggoon a xam tey ji ngeen fas yéene teg ci table bi waaw recommandation yi moom ak revendication yi bëri na lool lool lool lool mais ñun dañoo jàpp ne quel soit problème yi nga de la pêche mhm. ak euh, euh, lettre de politique sectorielle la vision du chef de l'État en matière de pêche. Mm-hmm. loolu ay nit ñoo koy def. te nit yooyu ay agent de pêches lañ leen tuddee. agent des pêches yooyu administration moom moo leen recruter. ci seen recrutement na ak seen payoor dan soo seetlu dañ soo ak ak ak méngaloo bu am entre agent de l' administration maanaam agent de agent des pêches ñoom ñoo gën a néew payoor ci administration des pêches si agent administration de pêches yooyu daf saa benn corps bu nu tuddee contractuel yi contractuel yi ñoom ñëw jàppale techniciens yi nekk si pêche bi pour que nu mën a mettre en chef de l'État en matière de pêche mais danoo seetlu ñooñu contractuels yooyu ñu leen ba léegi amuñu avancement salaire ba nga duggee administration moom ngay demee retraite loolu si secteur de la pêche kese nga donc de telle sorte que suñu recommandation bi njëkk moo xam ne dem dinañ ko euh, mu nekk participation si conseil présidentiel boobu hmm. mooy la valorisation des salaires yaa nouvelle yi ñoom pour que ñoom ñu recruter ñu intégrer leen dans la fonction publique. Mm-hmm. et puis mettre en place un plan de carrière pour ñoom comme nañ ko dafa woon ci recommandation wu conseil présidentiel bu deux mille mm-hmm. après loolu naturellement dina am yeneen recommandation yu ci wàllu saytu napp gi parce que napp gi dafa bëri problème lu dem ci wàllu xeetu napp gi napp gu bon gi xam ne sunu mbokk pêcheurs yi def tant ci ci wàllu pêche bi ak pêche industrielle bi waxtaan ci parce que ñun ñëpp ñu sam responsable muy agent de l'administration muy état bi muy muy mm-hmm. ñun ñëpp ay responsable lañ ci parce que ñun ñooy peut-être ñooy mettre en œuvre ñu ñooy appliquer lettre ñun ñooy appliquer yoon bi mais pêcheurs yi aussi ñoom ñooy dem géej di nappi te moyen bu état bi mën a mettre en place mënul mettre sur derrière chaque pirogue on a un surveillant des pêches état bi amul moyen boobu noonu mm-hmm. donc pêcheur bi je nappkat bi moom moo war a avenir am donc loolu il faut waxtaane ko ñu critiquer suñu bopp pour jéem a trouver ay solution par rapport ak euh, ak yeneen ak yeneen yoo xam ne incha allah dinañ ko tënk si kii jox ko jébbal ko ministère mu mel ni du ay recommandation yu bees ndax euh, boo euh, ci suñu waxtaan bu sànq yaa ngi ñu doon xamal ne mu ngi woon seen plateforme revendicative tey ñu bëggoon a xam depuis quand la plateforme boobu ngeen ko taxawal. plateforme bi ñu ko taxawaloon depuis deux mille dix neuf. boobu ba tey amul waxtaan. boobu amoon na waxtaan si jamono parce que jamono yooyu Omar Gueye moom moo fi nekkoon. Mm-hmm. Mm-hmm. après Omar ñëw ñu continuer waxtaan yi après Aminata Mbengue dem donc euh, ministre Alioune Ndoye moom moo na avancement boobu ba tey wala. Euh, avancement yi ñun de si gisuñu ko. gisuñu avancement par rapport ak suñu plateforme revendicative bi nga xam ne. ñaar fukki poñ la woon ñaar fukki poñ dañ see jël euh, juróomi poñ. juróomi poñ nga xam ne ñu ne état bi lii mooy suñu priorité pour que ñu indi leen si ñu waxtaan ci. Mhm. dem na de la fonction publique waxtaan nañ ak direction du travail waxtaan Abdoulaye Guèye ma parce que revendication dafa nekk lu transversal dafa am yoo xam ne ministère moom moo ko waroon ministère de la pêche moo ko waroon directement am revendication yoo xam ne c' le ministère entre le ak le ministère du travail ak la fonction publique. tey ndax am ngeen yaakaar ne conseil présidentiel bi dina andi euh, wala dina soppi xaru kanam euh, lii di euh, napp gi. dañuy da xam nga le fait que la république am xarañte wu ne ah. secteur de la pêche bi bëri na coow. Hmm. bëri na ay lu mu ciy dégg. Hmm. convoqué naa leen sama euh, euh, euh, bureau pour que ngeen ñëw ñu waxtaan ci loolu rek dañ ciy sant yàlla dañ ci sant gërëm ci le président de la république Macky mais ñun dañoo wax ne peut-être loolu yëpp sax mënoon nañu ko mënoon nañu ko épargner ndax na nañu jël recommandation yi nga xam ne ñaar fukki recommandation la woon. Hmm. toll woon si defe naa deux cent et quelques milliards pour la des vingt recommandations yi nga xam ne conseil conseil bu deux minutes bu ñu teniroon du temps de defe naa Abdoulaye la vingt recommandations bu ko jëloon c' que contexte yi changé na mais ñu réactualiser ko dugalaat yeneen données yu bees yi mënoon nañ jël les mêmes recommandations ñëw tegaat si taabalu président Macky Sall naka lii ak lii ak au traitement les agents contractuels leur intégration faisait partie des recommandations de euh, si bokkoon na si yooyu noonu yu conseil présidentiel bu deux mille deux mille huit comme ni nga ko waxee sànq coow li bëri na ci lii di euh, secteur bi euh, tey jafe-jafe licence yi ak it accord yi bëri na liñ ciy dégg coow tey nag nga foog ne lan moo waral coow li di bëri à chaque fois bu licence yi jot jotee renouveler ak li nga xam ne mooy accord buñ ko déggee saa su nekk. soxna si euh, euh, euh, li ñu naan gàncaxu géej gi. Hmm. Sénégal gépp ñoom ñoo ko moom mais Sénégal gépp mun ñu koo gérer yoon dafa ne pour gérer ko état bi moo ko gérer mais état bi da ko jaarale si ministère bu tudd ministère des pêches et de l' économie maritime tey ji Alioune moom moo ko gérer si gérance boobu nag loi bi dafa obligé état bi pour que ñu bañ a nekk mu nekk gestion boo xam ne gestion inclusive maanaam daf ko ñëpp ñoo si ñëpp nga xam ne ñooy yëngatu su wàllu napp gi hmm. dañ cee participer loolu nag état yi ñu def parce que partenaires yi euh, euh, les acteurs ñu ngi pratiquement dan toutes les instances de décision fa ñuy waxtaanee waxi napp ji de manière générale ña nga ca fa ñuy joxe attribution licence yi ña fa fa ñuy euh, defee commission des infractions ña fa yaa CLPA yi acteurs yi ña nga fa donc état ñu ngi leen ciy impliqué ñoom aussi ñu ngi ciy impliqué ñu ciy def liggéey bu bu bu bu bu ay maintenant nag des dina am coow coow bi lu ko indi mooy des fois dafay am manque d' koy indi peut-être du sax caaganóor eh, ay ay rétention d'information parce que administration am na yeneen yeneen priorité mhm. am na le temps mu war a mën a taxaw ñoom wax ne lii ak lii ak lii ak lii ak lii ak lii ak lii am na si wàllu licencié wala politique état bi wala matière de gestion des pêches gisuñu si seen bopp mhm. donc ñoom euh, bu leen neexee ñu taxaw wax li leen neex mais des fois la ñuy wax aussi ñun ay borom xel lan ay technicien lan des fois nan dan xa nan xam ne wax wax ji tag tagwul fenn la tey ndax da ngeen di faral euh, di waxtaan lu bëri ak ñi nga xam ne ñoom ñooy tutelle bi ministre Alioune Ndoye bi mu fi nekk ak léegi mhm. syndicat yi ñetti syndicat yi nga xam ne ñoo nekk si ministère de la paix mooy syndicat national des observateurs mhm. des pêches ñoom ñu ñoom ñu créé intersyndical de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal boobu ba léegi ñu ngi jéem a ut pour rencontrer ko mais ba léegi amuñu audience ak moom ba mu ba mu nekkee ministre des pêches ba léegi def naa deux mille dix neuf la heureusement euh, euh, euh, peut-être yàlla may na ko xel ba mu ba mu associé ñu ba mu associé ñu si lancement wu processus sous organisation conseil présidentiel de la pêche mais n'empêche ñu ngi renouveler demande demande demande d'audience noonu parce que suñu plateforme de pandémie bi jaaroon na fi. Hmm. Euh, tax na ñu ñu ñu nekkoon dans une léthargie donc euh, mais là euh, dañuy delloo buum sa bay bay incha allah. alxamis gi ñu lancé benn projet bu ñu duppee gouvernance des pêches au Sénégal tey jii ñu bëggoon a xam lan mooy pertinence bi. waaw pertinence boobu lool lancement gouvernance des pêches dafa ñëw fekk état bi ci liggéey boobu noonu. parce que état du Sénégal su ma juumul mettoon na en place benn programme national de lutte contre la pêche INN illicite non déclarée et non réglementée. Mm. programme boobu ñu ko déroulé. mais comme toujours li euh, naan ñambaas yàqul sër war a roof yàqul jën. bu bu bu ONG bu tudd Océan Océan Five ñëwee ne day jàppale état du Sénégal mm. jox leen war a toll si sept cent million pour que ñu ñu ñu renforcer seen gouvernance de la pêche donc loolu dafay nag lu lu lu lu lu salutaire lu lu salutaire ñu leen ci gërëm di leen ci sant bu baax a baax a baax a donc di demande comme ñoom recommandation yi ko waa euh, euh, euh, PCR waxee rek mm. ñu jéem see impliqué pratiquement acteur yëpp pour que ñu mën a def une surveillance participative ñëpp mën see gis seen bopp monsieur Diop ngay coordonné tamit lii di euh, cellule ITRAPAS ITRAPAS di intersyndicale liggéeykatu napp gi ak aquaculture fii ci Sénégal ñu bëggoon a xam ndax volet boobu di aquaculture mën naa euh, régler solution raréfaction li nga xam ne mooy ressources halieutiques yi mën na mën na ko régler de dans la mesure où problème yi nga xam ne aquaculture am na ko ñu jéem koo éradiquer. mooy yan si jëkk mooy aquaculture amul cadre juridique amul cadre juridique y' a pas un code de l' aquaculture ba ki ministère bi ñuy waxtaan sa affaire euh, lancement wu conseil présidentiel am ñu ko wax il faut un code de l' au moins bu ñu mettre en place euh, euh, les aquaculteurs au moins ils vont parvenir peut-être à trouver des au moins bu ñu ko mettre bu ñu mettre en place code de l'aquaculture bi ñi nga xam ne ñooy yëngatu si wàllu euh, yarum jën bi dina mën a trouver ay financement si si si si si si beneen bi si topp mooy euh, euh, aliment aliment yi xam ne jën yi koy lekk usines yi koy defar Sénégal bariwul quatre vingt pour cent des aliments yi dañ koy importer te buñ ko importer ça coûte très très très très très très très très très cher mais état bi dans tout ça resewul bras resewul les bras croisés mm-hmm. parce programme ah. programme repeuplement yi repeuplement lac mhm. ah, programme coopération technique yi yooyu état bi mi ngi mi ngi si doon liggéey ah ak xam nga yor wàllu napp jën dafa nekk lu xaw a délicat. Hmm. dafa nekk lu xaw a doy parce que euh, jën du n'importe où lay lay lay dund lu jëm si wàllu ndox mi éco écobiologique bi dafa am solo lool lool lool lool lool te yëpp état bi si doon liggéey dans le cadre avec euh, en coopération avec les partenaires techniques mhm. yëpp bu si si état bi jógee ba mën koo lijjanti je pense que aquaculture dina war a mën a euh, euh, même bu dul remplacer la pêche maritime au Sénégal dina mën a ñëw en appui euh, si pêche maritime bi ba raréfaction jën bi jën bi jën bi am parce que quoi qu'on puisse dire am na évolution de def naa 2017 ba 2022 am na évolution nous sommes partis def naa de 1000 tonnes à presque 3000 tonnes mm. donc loolu évolution la donc nañ jéem a jàppale encore aquaculture yi comme ça boobaa Sénégal gëpp boo xoolee au Sénégal aujourd'hui bu mhm. siy dugg si boo demee fii si am na ñu usines yoo xam ne loolu la ñuy jaay jëndu aquaculture la jóge daa en Asie ko jàppalee war na mën a euh, développer. sànq nga wax ko nga ne raréfaction bi du dara lu dul euh, jën yi nga xam ne walla sax euh, produit bi dañuy gën di sori ñu bëggoon a xam lan moo ko waral techniquement. waaw xam nga xam nga raréfaction des des des des des ressources bi. loolu moom kenn mënatu ko naataat mais facteurs yi dafa bari facteur yi mooy changement climatique indi na ko ah, beneen facteur bi mooy mauvaise pratique de pêche yi nga xam ne ñu ngi koy def si géej gi comme li ma wax tout en français mhm. jën dafa am bakkan comme nit rek fa nga xam ne da koy fréquenter pour nekk danger sur sa vie dootu fa fréquenter ti d'ailleurs looloo waral état wu Sénégal daa di pousse zone de pêche yi fi fi daan nappee au de des six nautiques état du Sénégal yóbbu na ko au delà des dix nautiques lan moo ko waral pour mën a permettre jën yi seen zone défrayère yi ñu mën koo yokk donc de telle sorte que léegi jën bi bi doon évoluer dans les zones dans la zone des des douze quatorze day dem dans la zone des vingt vingt et quelques nautiques donc du coup yow nappakat bi wala yow yow borom bateau bi bu fekkee ne yow amoo technologie bu la mën a yóbbu foofu dans ces profondeurs là pour mën a fekk jën bi fa mu nekk parce que jën bi du la fekk jën yaa koy fekk fa mu nekk napp ko bu fekkee ne amoo technologie la yóbbu foofu di nga dinañ toog fii di yuuxu euh, euh, euh, raréfaction des ressources si si loolu rek la ñuy donc dañuy dañuy ñaan sunu sunu mbokku mbokku euh, industriels yi mm. ak investisseurs yi ñu investir dans le renouvellement de leur flotte dëkk bi technologie bi dafa avancé technologie bi avancé noonu la jën biir poussé dem dans les profondeurs donc il faut que nga fekk fa mu nekk jàpp ko. Maguette Birama Diop ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax.